wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim wa radiallahu taala an asxaabi rasulillah wala xawla wala quwata illa billah yaa himmat cheikhi uxduri lana bi hada almaxdari wal taatufi bi nadratin taati lana bi zafari ñëw ci suñu xutbatul jumaa ci lettre bu mawlana cheikh ibrahima radiallahu anhu bindoon muhammadul amin bun huseyn bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari al azim Mbaye mu ngi commencé lettre bi ci bisimilah rahmaani rahim julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa baad ginnaaw loolu fa inni uusi nafsi man de maa ngi dénk sama bopp wa uusi saaxibi maa ngi dénk itam sama àndandoo al adib sama àndandoo boo xamante ne ku yaru ku ñu yar wal qudwatil kabir al habib di royukaay bu mag boo xamante ne soppe dëgg la. alfaani fi mahabbatillahi wa rasulihi wa cheikhi wa sirrihi mu ne koo xamante ne ku jeex tàkk la ci bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cheikh Tidiane ak sirru cheikh Tidiane sirru nag mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wax ne xamaltu sirra xaatimal wilaya man maa ki gàddu sirru xaatimatu wilaatu muhammadiya kon bu ñu waxee sirru cheikh Tidiane mooy Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kooku mooy kan bàyyi mu ne al bi rabbihi ku xam boroomam a saydu muhammadul amin bun hussein mooy saydu muhammadul amin doomu hussein lan la ko bàyyi dénk mo ne bi taqwallah ci ragal yàlla maa ngi koy dénk ragal yàlla fi sirri ci lu nëbbu wal jahri ak ci lu feeñ wa dawaami muraqabatullahi taala maa ngi koy denki tam mu sax di fuglu yàlla subhanahu wa loolu nag manqué na arifu billaah yu bëri ci jamono ji fuglu yàlla waaw fuglu yàlla ci jëf yi fuglu yàlla ci meloom yi fuglu yàlla ci turam yi eh, jafe na lool lool lool te bàyyi nga koy dénk taalibeem mu ne wa an laa yu amila illa lillahi waxdahu mu ne maa ngi koy dénk itam bu mu lu dul yàlla subhanahu wa taala moom kese nay jëflante ak yàlla loolu itam nekk lu jafe parce que jëflante ak yàlla yombut xataa mbindee da nga ci gis koo xamante ne dégg nga mun na am sax neexut la wala mun na am mu noonoo la waaye yow sooy jëflanteeg moom na nekk ngir yàlla rek na nga jëflanteeg moom ci yàlla ndax su fekkee yaa ngi jëflante ak nit te yàlla rek a tax su boobaa jëf jëf ji yow doo ci gis lu dul yàlla su boobaa moom danga nga ci am yool waaye waxtu woo xamante ne yaa ngi jëflante ak nit di ci séentu leneen lu duhut yàlla su boobaa moom jëf ji mun na am nga am ci bañ a am lu la neex wala nga bañ ci am sax fay parce que nekkul ngir yàlla bàyyi mu ne wala yarju bu mu yaakaar wala yaxsha bu mu ragal itam illaa huwa lu yàlla maa ngi lay dénk yow Muhammadul Amin ak képp koo xam ne taalibe la yaa ngi koy dégg rek ndax bàyyi waxam yemut rek ci Muhammadul Amin waaye ci ñëpp la kiy jëm en général moo tax mu ne wala yarju bu mu yaakaar wala yaxsha bu ragal illaa huwa lu yàlla bul yaakaar kenn ku yàlla bu ragal kenn itam ku yàlla wala yafaalu fi'lan fi'lan illa lahu bul jëf itam benn jëf lu dut <coughs> ngir yàlla rek <coughs> waaw benn jëf bu ko jëf lu yàlla waaw wala yafaalu bul jëf fi'lan benn jëf illa lahu lu ngir moom lépp loo jëf rek na nekk ngir yàlla waaw mu ne wal xalqu yasqutuhum min aynihi waaw mu ne mbindeef yi nang leen waddal ci sa kanam bul gis benn mbindeef waaw bul gis kenn dégg nga ci sa ci ci ci ci sa kanam waddalal mbindeef yëpp mu ne wa uusihi maa ngi koy dénk bil muhaafazati tàmmati dégg nga mooy mu wattu bu mat wattu gu mat alal waajibaati ci warte fii ci nga xamante ne moom moo war waaw lépp lu ko war na sàmm wante ak moom dégg nga wala siyama asalawaatul xamsa fil jamaa mu ne rawatina nag julli juróom ci mbooloo gis nga julli juróom ci mbooloo bàyyi da ciy insister lu bëri ci taalibe mi lettre yu bare bare bare ba damay ci jawaahir rasaayil ak yu mel noonu yëpp da ngay fekk bàyyi loolu lay dénkaane maa ngi leen di dénk julli juróomi ci mbooloo maa ngi leen di dénk julli juróomi ci mbooloo loolu mbokk taalibe yëpp nañ ci bàyyi xel mu teg ci ne wa uusihi dégg nga bil muhaafazati tammati alal waajibaati wala siyama salawaatul xamsa fil jamaa maa ngi koy maa ngi dénk na na na Euh, wottuwante ak waajibaat yi war yi nga xamante moom moo war mu ne rawatina julli juróomi ci mbooloo ak lan wa alal wirdi tijaani al maalum maa ngi koy dénk itam wirdi tijaan biñ xam dégg nga te wirdi tijaan bi mooy laasim mooy wasifa mooy zikru juma laazimatuñ encore une fois mbokk bi yu bëri laazimatuñ nañuy laazim mooy secret tijaani bi gën a mag ci tarixa tijaaniya bi nañuy laazim nañuy wasifa surtout ñu defee ko ci mbooloo waaye nañuy zikrul jumaa ndax amul kenn ku am droit ñetti aljuma yu toftaloo defoo zikrul jumaa yaa ngi dégg te fekk amoon ngant ko kenn amul boobu droit nañ ci bàyyi xel te zikrul jumaa duñ ko fay képp koo xam ne ñàkk nga koo def lu tollook ñetti aljuma bu yeboo nga bees lu waat loolu nañ ci bàyyi xel ak lan wa alayhi bi nasihati ixwanina alladina maahu mu ne maa ngi koy dénk nay laayante biir ak suñu mbokk yi nekk ak moom mooy taalibe yi taalibe su nekkee ak yow na na ngay laayante ak biir ci moom na ngay na ngay laayante ak biir ak moom na nga koy laayee biir su awee yoon nga ne ko aw nga yoon su jàdd yoon ne ko jàdd nga yoon waaye taalibe bum jàdd yoon ba noppi nga gis ne moom kat mu ngi jàdd yoon yaa ngi dégg waaye nga gis ne njëriñ dafa dox sa digganteeg moom ba tax na yow doo ko wax dëgg loolu digaluñ ko benn njiit Baay dafa wax ne na nga biir taalibe yi moo tax ba muy wutloo sëriñ dafa wax ne watlub murabbiyan xabiran naasihan wutal sëriñ dégg nga boo xam ne yarekat la ku xam yëf yi itam la yaa ngi dégg waaye kuy laaye biir la sëriñ nay laaye biir moo tax baa ne wa alayhi bi nasihati ixwaanina na laaye biir suñu mbokk yi mooy mbokki taalibe yi ngay àndal allazina ñi nga xam ne maahu ñu ngi ànd ak moom bil amri bil maarufi mooy nga leen di digal lu baax taalibe yi na leen di digal lu baax nañuy bëgg lu baax nañuy wut xam-xam nañuy jëf lu rafet nañuy nañuy nañuy nañuy nañuy jëflante ak nit ñi itam ci lu rafet dégg nga nañuy jëflante ak seen bopp ak seeni mbokk itam ci lu rafet dégg nga mooy al amru bil maarufi waaye wan nahyi anil munkar nga tere leen yuñ sib yi dégg nga mooy ñàkkaa jaamu yàlla ñàkkaa wut xam-xam ñàkkaa julli ñàkkaa woor ñàkkaa jëflante bu rafet ak mbindeefu yàlla yi loolu dañ koo tere képp kuy taalibe dégg nga bal képp kuy jullit bul iñaane kenn bul rëy bul jëw bul di noonoo ak kenn dégg nga bul di bañante ak kenn bul di tongoo ak kenn loolu dañ ko tere képp kuy jullit bal képp kuy taalibe tijaan radiyallahu anhu baa mu ne wa sabru ala izayatil xalqi mu ne maa ngi lay dénk itam ci muñ na muñ ci lor gi nga xamante ne taalibe yi ñu ngi la koy lor jullit ñi ñu ngi la koy lor mbindee fi kon mbindee fi wa sabru ak muñ ala izayatil xalqi ci lor ak mbindee fi mbindee buñ lay lor na nga muñ amul kenn koo xamante ne yàlla bind na la ngane loraange du la dal faw nit ñi lor la waaye na nga muñ fexeel ba bul yow delloo mbindee fi luy leen di lor waaye na nga accepté loraange yi jóge ko ci mbindee fi jëm si ci yow moo xam wax yu ñaaw yi la moo xam xalaat yu ñaaw yi la moo xam considération bu ñaaw la moo xam bët yu ñaaw yi lay xool moo moo xam làmmiñ bu bon buñ lay waxal yëpp nuñ la mën a kiyee rek yow na nga accepté lorog mbindee fi jëm ci yow moo tax bàyyi ne wa sabru ak muñ ala idaatil xalqi ci lorog mbindee fi wa ak gërëm bi qadaa illahi ci eh, atteg yàlla yi wa taslimi li xukmihi waaye ak itam jébbalu ci eh, eh, atteem yi nu ko atte rek gërëmal nu yàlla attee mbindeefam bi rek na gërëm dégg nga mu teg ci ne suma inni naka man Cheikh Ibrahim bàyyi mu ne naka man Cheikh <clears throat> azantu jox naa la ndigal wa ajastu te ijaazal naa la waanaa ijaazal naa ko moom Muhammadul Amin te jox naa ko ndigal itam fi itaai tariqati tijaaniya ci joxe tariqa tijaaniya li kulli man talabaha minhu ñeel képp koo xam ne sàkku na ko ci moom dakran kaan aw unsa moo xam góor la moo xam jigéen ku ñëw ci yow di sàkku ci yow tariqa tijaaniya jox ko xurran aw abdan moo xam gor moo xam jaam taian aw aasiyan moo xam jaamukatu yàlla wala mooykatu yàlla wa kull wa fi kulli ma saxat bihi arriwayati an cheikhi ak lépp loo xamante ne lu wér la lu ñu lu jógee ko ci Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu min al asraari ci secret yi wal awraadi ak wirdi yi wal azkaari ak zikar yi min gayri taqyidin fi cheyin wala istisnain ci loo xam ne tënkuma ko ci ci dara ci mboolem secret yi ci mboolem awraad ci mboolem asraar yi yëpp tënkuma ko ci dara jox naa ko ci ndigal te itam nëb nëbbalu ko ci dara wutoo mu wutoo ak moom ci ci dara lépp jox naa ko dewul nañ ci bàyyi xel bëriwaat na kuy wax ne man damay mooy yàlla du ma jël wird bi gis nga bàyyi dafa wax ne aw aasiyan wala mooy katu yàlla mooy katu yàlla su ñëwee sax ci yow di wird di laaj wird bi jox ko parce que wird bi dafay defar nit wird bi dafay defar nit duut wird bi dafay dafay dafay day bàyyi ba nit ki sell da nga door koo jox déedéet kon jaru nga ko jox wird parce sell Euh, lañ soxla ci nit ki kon nit ki bu sellee jaru nga ko jox wird waaye nit ki su jubadee yaa ngi dégg wala muy jaamu yàlla bu ñëwee soxla ci wird bi itam na ko jox wird bi loolu soxla dégg nga mu teg ci ne wa alayhi bi irshaadi kullu man axada anhu wa yadulluhu ala allahi bi qadri himmati kulli ahadin lillahi billahi fillahi bàyyi mu ne maa ngi koy dénk na jubal jaamu yàlla yi bi irshaadi kulla man axada anhu képp ku jël ci yow fexeel ba nga jubal ko fexeel ba nga teg ko ci yoonu njub wa yaddulluhu nga tegtal ko ala laay ci yàlla bëri na ku lay topp du la tegtal yàlla nit su ñëwee ci yow jël ci yow moo xam askaaru tarbiya moo xam askaaru tariqa na nga ko jubal nga teg ko tegtal ko yàlla yeneen yi ci des yëpp ba ko ak sagoom waaye na nga ko tegtal yàlla nga jubal ko bi qadri himmati kulli ahadin maanaam ci kéemtu laay kenn ku nekk lii sa yitte na ko ci jubal ci yàlla lépp nag kenn ku nekk itam lillaahi na nekk ngir yàlla billaahi ci yàlla fillaahi ci yàlla mu ne wa asalullah taala maa ngi ñaan yàlla an yaxuda bi yeddihi mu jàpp ci loxoom wa yanfau bihi mu jëriñ ko ahla wuddihi mboolem ñoo ñu soppee mi ñi nga xam ne am nañ cofeel ci moom daa iman daa iman sarmadan sarmadan dappet daa iman dappet ila yawmi diini ba yawmal qiyaam wa salaam wa kataba xadimul xadrati ibrahimi aliyun siise bun alxasan attijaani razaqahu llahu ixlaasi mahdul ubuda bi jaahi ruhul maani dégg nga ki bind lettre bi nag mooy xadimu xadratil ibrahimiya mooy seydi moola seydi aliyun siise bun xasan attijaani dégg nga yal na yàlla wërsëgal ko mbel ak jaamu yàlla ci muy tawassulu ci ruhul maani te ruhul maani mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dégg nga anhu mu defee ko nag an izni cheikhina ci ndigalu seen sëriñ wasilatina ak seen wasila ilallah jëm ci yàlla cheikh ibrahim bun alhaji abdullah atijani nafaana allahu wa ahya wa ahibbaina bihi yal na yàlla jëriñ lu ak mboolem suñuy soppi ci moom wa waasala fiina amdaadahu bi jaayihi yàlla na yàlla jokku itam suñuy mëdët ci moom yaa ngi dégg ci barkeem yowmul jumaa sadis wa achirina min zil hijja haram alfun wa salaasa letre bi wala waaw letre bi ñu ngi ko bind letre la en même temps ijaza la dégg ñu ngi ko bind ci zil hijja dégg nga ci weeru aj atam 1354 hijriya ci Medina Kaolack dégg nga allahuma salli ala sayyidina muhammadin xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim abonnez ci notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay digil gëstaloodam sidi baram